ma ngi ko nettali cheikh bi ma nekkal fekk mu ne ma cheikh bu sëriñ Mansour dey ko am cofeel ci yow la ma ne ko bala nga ko doon xam nga gisoon ko keroog ci dëju góor gi waaw am na oto am na it ay njaboot yu am oto mais nanguwul dugg lu sama oto fu ma jëm ñooy ànd waaw te fekk na loolu waxuma la sunu diggante mais ci góor gi laa ko jële moo ma daan wax ni ma mu sëf ma ne ko labbayka mu ne ma sama turandoo bu sëriñ Mansour ku baax la waaw jamono bu ne mu ngi jaar fii di yóbbante ci man waaw fa tabaarakallaahu ma defe ni kon nag loolu dundal ko duñ ci topp nit ñi dañ ciy seet sunu warugar rek ñu def ko loolu rek laa ne woon bu ma ñëwee ñu sànni ko nit ñi xëy na beneen yoon sax mën nañu def yeneen waxtaan waaye tey tey la tey waaw dafa am lu war ci bés bi mënoon na bàyyi soxna Daba ak soxna Kala ñu waxtaane ngoon gi waaye seen xol dafa fees ma defe ni loolu ku mu doyul leneen lu lay doy ci àdduna bi amatul ko defee kon nag lii soxna dafa wax léegi rekk moo ci nekk am na koo xam ni boo ko soppee dëgg boo sañoon njabootam yépp ñu nekk benn ànd lu ñuy def ñu defandoo ko wa tabaarakallaahu nettali naa leen ko ca waxtaanu laylatul qadr ba Pape Malick Mbaye bii ak it Modou Fata Sarr ku ci nekk proposé gama lu mel noonu Pape Malick def ni ma man daal sëriñ bu ma sañoon léeg-léeg am ajjuma yoo xam ni bu jotee nga ñëw julli ji ca jumaa ja dana am lu mu def ma ne ko pap bu ma ñëwee foofu tas jumaa ja waaw ma ne ko te kenn du dem ci jumaay jàmbur nag pour tas ko waaw te man li ma la wax xam naa ko waaw wa tabarakallahu Modou Fata Sarr booba ci burdu bi lañ doon wax ma ne ko gis naa façon bi burdu bi di doxe taxawaayu cheikh bu sëriñ Mansour ak taxawaayu njaboot yi nekk ci wetam ma ne ko looluy tax bañ leen gêné ni ma dem fa teew fa duma wàññi dara moo du fataani ma ah koy gêné nag du fi am mu ni ma ndax ku mu mën a doon bu ko yàlla baaxee war na xam li la yàlla sédd lan la waaw ba tax na kon nag yu bari yàgg nañ ko waxtaane sax Mansour mi xam na ci dara waaye bañ déranger rek kenn ku ne da ngay jàpp ni fa mu ne yow la fa nekkal waaw yàlla xam na ko bu ko defee kon nag ñëw bi ci